asalaamaaleykum euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Sidina Ousmane Dramé bu la de des dañoo de siwaatoon rek bëgg teg Ibrahima Gueye leer euh, mu wax jëme ci accident bi nga xam ne xew na ci yoonu Kébémer bi accident yi moom dakkagul du dakk ndax am naa yaakaar ne daal suñu toogin war nañ koo jubbanti suñuy jëfin war nañ koo jubbanti suñuy waxin ak suñ yéene waroon koo jubbanti lii ñu dal ci réew mi du darul balaa balaa kepp ndax kenn ku ne xam na ne bokkaale gi fi mu toll dafa tar kenn ku ne xam na ne kenn tul kenn jàmm kenn ku ne xam na ne biir kër yi déggoo soo nekkatu ci kenn ku ci nekk jalousie bi ni ci yow ak keñaan gi ci yow dem na ba banque la banque sab xol banque sa wërsëg dolli ca tey ma bëggoon a bàyyi Ibrahima Gueye wax wax ci ni mu gisee accident bi ak lan moo ci xalaatam boo ko defee ni du bokk ci boole suñuy xalaat ten mooy oto yi mbir mi du ci ëpp du ci oto yi jóg jiit jiitle bàyyi sa njaboot gu ndaw bàyyi say soxna dajaloo ci ay oto di yuuxu di dem di yuuxu di dem ngeen naan da ngeen di cantak da ngeen dem ci ay tool ak da ngeen ci ak wooteeg loolu lépp lépp day attiré balaa te surtout boo nekkul ci lu jub yooyu war nga koo moyu te nekkul ci lu jub ak bokkaale dara yeesu ko bokkaal dara yeesu ko te fii nga xam ne fi leen jëm bun dëppul bun dëppul dama ne bun jubul jubbanti wunu jubaluñu bidaay des na ko réccu kon nu bokk déglu Ibrahima Gueye ah bu noppee ñu dolli ci suñuy xalaat te bokk góor góorgóorlu bu baax a baax nag kon bisimilah Ibrahima. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp tey nag sama vidéo bi dafa jëm ci. tiis wi am démb metti lool lool lool lool metti trop lu ma fukki bakkan ak benn ñàkkandoo seen bakkan te dañuy daal di xëy rek waxaat ay fan rekk jooyaat rek fàttewaat ñu mel ni maanaam demee yu ci télé bi bakkan yi ci doon duñu day day mel ni daal dafay jaar rek jàll li ci métti gën a métti encore mooy saa buñ ne onze personnes dee nañ vingt personnes blessées blessés grave yëpp danañ dee te kenn du leen déclaré woon encore te da am ñu ci bëri ñoo xam ne duñ dañuy mujj ci la ñuy seen cër yàqu ci la seen àddina di yàqu ñu ci des sax dañuy faatoo ñi ci gën a grave ñu ci bëri dañuy faatu te bilan bu njëkk bi rek la ñuy wax duñu wax sax bilan ba ca toppaat muy lu metti lool di tiis lool nag. ndax ñun Sénégal dafa mel ni dañoo banaliser bakkan yu faatu bokk na ci nag li ñuy wax ne nee nañ sëfoor si la man d'accord naa am na lenn loo xam ne sëfoor si la waaye li ci gën a li ci des itam oto yi nga xam ne ni oto yu baaxul lañ oto yoo xam ne ni bu defee soog léppay tasaaroo te loolu lépp dan la warulu ko lu dul ay li ñuy wax ne oto moyen de cinq dugg ci réew mi ñu jël oto yi nga xam ne dañoo waroon a sànni bu yàgg oto yi nga xam ne dañoo waroon a sànni bu yàgg kenn waratu ci dugg ñu koy def di comme defaraat ak defaraat ndax lan dañoo interdit oto moyen de huit ans dugg ci réew mi kon oto yi bon a fi daw oto yi bon mooy daw ci réew mi loolu lañu war a dindi ci loolu ay intérêt personnel ay économique jarul ay maanaam nu mu tuddati jarul ay bakkan yu baree baree bari bés bu set ay bakkan ñàkk ci tali bi te ay intérêt personnel lu ay lu mat ay groupe rek seen oto yi jaay seen oto yu bees yi rek a tax ñu ne léegi danañ fexe ba oto bu oto bu baax boo xam ne am na visite technique Europe visite technique bu normal mën a daw Espagne mën a daw fépp ci Europe ñu ne oto bi du dugg Sénégal ngir ay intérêt personnel te ñu ñu ngi njàkk suñu doom yi ñu ngi sàggane suñu alal nit ñi ci àll ci tali bi nañ bàyyi oto moins de cinq ans oto yëpp ñu dugg si réew mu amul doole amoo doole amoo looy oto amoo dara France nga nekk Espagne Italie kenn ñu fa oto bu amul ci ñooñu ëpp ay moyen fii ñu ne bu amul bu am witaa du dugg ci bi kon kay oto yu màggat yi la ñuy tegaat tali bi croisement Cambérène gii foofu dugg da nga gis kalandoo boo xam ne ab sareet ko gën te loolu dara waralu ko loolu jël ab jël ay loi yoo xam ne teg ko ci askan wi attanuñ ko oto yaa nga ne Espagne yée ngi ne Italie yée ngi France ñu bëgg a indi oto ñoo ne oto yu dëgg nga xam ne oto yi da ngay dikk dagg ko ci ko lu tax suñu waxee ñoo naan yi dañoo bari oto yi dañoo bari am na ñoo xam ne amuñ saret mbaam ña nga fee ñu ngi ci àll yi te immigré bi moodu moodu yi waa diaspora bi sonn nañ lool ci sa premier président bu fi dikk da nga leen di dikk ñu am yaakaar ne saa boo toogee danañ fexe ba ooye oto maanaam limitation de oto yi ñu dindi ko ñu toogaat mu ñaat te ña nga ne di liggéey ay ati at am na ñoo xam ne dañuy yor seen oto bëgg ko yónnee ci réew mi mu nikk di liggéey ñu ne leen oto bi du fi dugg loolu nag bokk na ci injustice la laa wax loolu injustice la nañ bàyyi oto yi moyen de cinq ans ñu dugg ci réew mi oto nécessaire la am na ñoo xam ne sax dañ yaakaar ne oto luxe la nit ñi koo gis man ab sareet ak Louga gee sareet yaag voiture yaag yëpp oto yu bon yi rek ñooy daw ci télé yi ndax dañu oto bu baax dootu dugg ci réew mi nga jël oto boo xam ne ni 1945 ba tey ña ngi koy defaraat ko ñam ñamalaat teg ko ci télé bi mu jóge màggal Tuubaa gi rey ay nit bu defee soog oto bi tasaaroo bu defee soog oto bi tasar dara du ci des loolu nag état senegal moo war a jël ay responsabilité bu ñu waxee ma naan accident yi oto yi sëfoor yi sëfoor yi sëfoor yi luñ mën a dawal dawal dawal te oto yi baaxuñu accident du fi jóg boo frein doo lamb daj dara oto bi bu dajeeg soog dong oto ba day tasaaroo ñëpp faatu kon nag nañ bàyyi oto moyen de cinq ans yi oto mooy limitation di oto yi nit ñi indi oto yi fee ci Europe Europe ñooñu ñooñu ëppi oto fopp lan na ci Europe mën nañu dig fi ñu sensé oto yu baax yëpp oto yu bon yëpp ñu sensé leen def ci yeneen oto yu baax waaye da nga gis dëkk boo xam ne ni boo boo feebaree doo am oto ba la yóbbu ambulance sax mënoo ko am nit ki bu may ambulance sax ñu mel ne ambulance bi ligsi la daf leen jomb te loolu lépp dara warul ko loolu oto moyen de cinq ans yi ñu tëj ne du dugg ci rée mi Gambie gii boo fa demee oto yaa nga fa bi saw oto yaa nga fa Mauritanie gii oto yaa nga fa Maroc gii dañuy dugali oto yow nga ne senegal oto bu mooy de wiita du fi dugg mel ni danga am dara koo xam ne ni ci yalwaan ngay dëkk ci tàllal loxo ah dem fay Europe ñu sarax la oto sa sa état ne sa gouvernement ne la oto bi du dugg ci réew mi nga sànni ko wàcc ko fa te boo dikkee ci mi dugg oto boo xam ne ab sareetu ko gën kalandoo yi daw Dakar benn baaxu ci te loolu dara waralu ko encore une fois maanaam arnaque bi ci nekk léegi la gis jàpp oto di ca ñoom ñii di ay chef police ki gendarme ay policier chef policier yi dañuy yor oto yoo xam ne di wala te dañ koy dawal te dara du ci mujj dara du ci mujj ñoom fii Touba oto ma gis policier fa nekk yëpp oto yi ñu yor wala te ñoom kenn du leen wax dara nañ bàyyi oto yi ñu dugg si Sénégal yi am oto yu baax di dugg ci tukki oto yu baax xat-xatloo ci oto bi xat-xatloo ci oto njaganjaay benn boo xam ne ab car rapide yi ci xat-xatloo lu ko waral lan moo ko waral ñàkk am oto yi ñu dugg Touba gi amuñu lu ñu duggoon ay sareeti mbaam sareeti fas la ñuy transporté Kaolack gi Jakarta la ñuy transporté lu ko waral bu ñu waxee ñu ne Jakarta yi Jakarta yi. ñu nay leer euh, ñu di ko gërëm ci ab taxawaayam ah di ko gërëm ci taxaw gum taxaw ngir Sénégal rek jàkk Ibrahima Gueye ne leer dama ne euh, ñoo ngi koy sant di ko gërëm ñun waa réveil des consciences ndax. seetlu nañ ko yitteem yëpp yitteem yëpp doomu aadama yi la yitteem bi yëpp doomu aadama yi la ak nu Sénégal jage nu Sénégal baaxe nu Sénégal yi tekkee loolu képp mooy la ko ñor yu mel nag buy am ci kanamu koo xam ne noonu la mel eh, aw naqar da koy dëkkee aw naqar da koy jàpp aw naqar lay tëddee aw naqar lay yeewoo eh, ba tax na ñun Sénégal man day li ma gis li ma gis defe naa ne war nañoo seetaat suñu bopp dama ne li ma gis ci réew mii ak li ma yëg dama ne bala ñoo laaral alxuraan laaral alxuraan war ñoo dellu tuub dama tuub national tuub national war nañ koo def ndax li topp réew mi budul balaa budul balaa man jaaxal na ma ak mooy yàlla baaxut ak ngóor jigéen baaxut ak cagatu baaxut ay fen tappale wor wuruj baaxut diw yow kilifa giine kilifa giine diine ku la neex takk ku la neex fose doon kilifa giine diine yor sa njubadi ak sa mbonuk bopp ba pare di wuyoo islaam dama ne kan xoolaat sun bopp dama ne kan ànd tuubaat bala ñoo laalal alxuraan fun gën di song téere bi ci yàqu li gën di jëm ndax boo seetut am na lool loxo waru koo laal dama ne kan dellu tuub ànd tuubaat ndax lii balaa la musiba ak balaa buy dal ci nit buy dal ci doomu aadama walu muy dal ci aw askan day mel ni ay njéeréer waaye bu ngeen xoolee nu xoolaat suñu bopp accident yi di am ci réew mi daanaka amul fenn du ci oto yi ci sagari oto yi nit ñi ci boppam nit ñi ci boppam ñoo ragatul yàlla dëkke ak bokkaale dëkke ak moyaale dëkke fen ak sàcc dëkke wor dëkke tëdd jabari jàmbur di wooye sa bopp loo nekkut awaay kan dellu tuub àndaat jaamu yàlla buñ ko defut lii du dakk dama ne suñ loxo bii bala ñu ko tegaat ci alxuraan ñun ñëpp nañ jóg dajaloo xam ne tooñ nañ jéggalu suñu boroom mu jéggal nu ay man nañ ko yàlla bàkkaar bu ndul baale amut boo tooñee nangul ne tooñ nga dellu ca suñu borom sukk ci toroxlu jéggalu mu jéggal la lu yàlla mënta baale amut surtout ñëpp buñ àndee tuubaat dama ne tuub national tuub national ñun ñëpp ñu dajaloo tuubaat tuubaat des ci lislaam bu am kersa ban génn ci lislaam yàgg na ci bokkaali gu mat sëkk sëkk ci la ñu ne lii ñuy doxal xamuñu lu mu doon billaahi dañuy wax te daa mel ni ragaluñ yàlla Sénégal képp ngay gis kuy dem dana de lu ma trois semaines trois semaines day fàtte moom ci boppam ne day faatu Sénégal képp ngay gis waaxuy dem mu wóor xoola fàttale na dana génn àdduna lu ko neex lay def sukkandiku ci bokkaale sama sëriñ ma yóbbu àjjana ak sëñ diw yàlla ak sëñ diw may képp ku ne sëriñ diw moo la yóbbu aljana weddi yàlla dootul jullit ay fen baaxul kën jël si doon ay nit te xam ne dañoo war a bokk jaamu yàlla li dal Sénégal xool leen waay bu bët see am ndox ni mu barkeele ñëpp di ñaan am ndox Sénégal bu tawee bu tawee mbedd yi su bët sebbee dëkkub diine ngay dem oto yi duñ mën a jàll ndax ndox mi ndox mi ma kër jàmbur yi ndox yi toll ci sëb dënn te mu wóor la ndaaloo ubbi ndaaloo ubbi rek doo ci fekk pot ndox boo mën a naan kan xool suñu bopp dama ne mbedd dee fees dell ndox ay citerne ñoo jóge feneen di ñëw pour wag wëgg nit ñu naan te mbedd yëpp ndox lay doon citerne sa doom fu jaar te mu leen am kaasum ndox bu sell ngeen naan ko seen jàq yi yàlla wet gu ne lay wone boppam am xel boo ko amut sunu borom du communiquer ak yow ubbi leen seen bopp yi dessiné yàlla képp ay buur yàlla képp am kan dellu gëmaat yàlla dellu tuub musiba mi muy réew mi dama ne bu leen am kersa réew mi di jag néew fi ni réew mi yàqoo ni la diine ji yàqoo bokkaale gi yàq na lépp te bokkaale yàlla du ko baal nit te fi nga ko defee la lay tàmbalee duma te lii ay yar la ay karawaas la kan dellu tuub del ci lislaam raxasu ba set sangu ba set door a jël alxuraan dellu ñaan lii musiba la de musiba mbaa bu la moo xam ne dakkul de lii da leen noo fàttali ca yontu yàlla lóot ca mbirum góor jigéen ya leen yàlla ngir war a fàttaliku lu ko raw a ngi nii lu méttee ngi nii suñuy doom dañuy dund sax xool géej gi rek tàbbi ci biir dee xale yi dañuy xar xataraay dugg ci géej te ni xataraay dugg ci géej gi bëgg génn réew mi mel ni ab sébboo ne ci réew mel ni réew mi day tàkk ñëpp bëgg a daw ak alal ji neen yàlla jox koo seen daa bëgg a dem kenn bëggatu fee toog ñëpp yi daw accident yi rey ñëpp yi dem tubaab bi rey kenn ku ne rey kenn xamul foo jëm ñëpp a jaaxle waaye kenn wàllu suñu bopp oto yi ñuy wax ñu jóge Europe ah bala ñu koo def nañ ko xool nañ ko xool réew mu ne nag ci nattu lay ne nattu booba nga ne da ngay def ne bu fekk lu loolu kon raxas xol yi dir si ci ak mbaax boo jëlee am Mercedes ci Europe mu bees pul indi ko Sénégal tombeek balaa bii accidenté ngay def boo moyul te da ngay faatu kan fexe oto yu baax nag mënta ñàkk mënta ñàkk waaye oto bu fukki at juróom nga di ko dugal ci réew mi loolu jaaduwut oto moom ñaar fukki at di daw ci réew mi jaaduwut oto bu ñetti yoon ñeenti yoon nga réparé ko mu daw ci réew mi jaaduwul mbaam yi ak sarit yi jéggi tali bi jaaduwul waaye ñun ñii suñ bopp ñun suñ bopp ñoo awul ci aw yoon kan bàyyi mooy yàlla gi kan bàyyi fen yi kan bàyyi tappale kan bàyyi rambaaj gi kër yëpp a tas kër yëpp tas ay fenkat dugg ci biir ay xëccoo ay rivalité ay jalousie kër yëpp a tas ndaxuk soxor ndax keñaan ndax yéene nit ki lu dul jàmm moo tax ñëpp a torox te torox ba pare di dem sawara lu gën a métti gisuma ko waaye kenn del si doon ay julit del si doon ay julit ngir yàlla bun ko deful buñ ko deful des na ko bokk réccu maa ngi jéggul tey ñaan jàmm jàmm rek laa bëgg ci réew boo son jàmm képp fi am waaye kan dellu si ci lislaam kan dellu tuub kan sangu ba set jàppaat door a laal téere bi ñu naan alxuraan lépp a ngi ci biir alxuraan lu la të lu la réer rek boo dee rek am po am po dafa dëppool ak diini dëppool ak lislaam dëppool ak dara am te dañuy dama dem cant ak danoo boo ak cant cant gaa demoo nag te dana amoon nangam ak dañoo ma ay daayira dajaloo ci oto yi tel yu bon yi ah di fekk jeneen yàlla ju yàlla ji ngeen xam ak yàlla ji leen booleel musuba mbaa bu kumba yu bari ci yoo lay jóge te seddoon li ma leen di wax seen cant yi ngeen di def ak dajaloo yeeg dem ca gaayar ak dem ca tool yi sëñ baak yooyu yëpp dugg ci oto yu bon yi téere réer yi ah, loolu moo gën a garaaw sa oto yu bon yi waaw maa ngi ziare ñëpp te jégalu bu baax nag yàlla nañ buur yàlla sutural yàlla buur yàlla indi jàmm ci ñun la bëgg ci réew mi yàlla ko yàlla def faatu gi yàlla na fi dakk ten dellu tuub teelu tub del ci alxuraan puis am law